أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام mbokki jullit yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci sunu turu boroom noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu noo ngi ànd ak yéen ba tey ci qissatu muusa alayhi salaam mooy istuwaaru yonent yàlla muusa noo ngi toll tey ci qissatul hajar mooy istuwaar bi doxoon diggante Muusa ak xeer wa allazi axasa siyaaba Muusa alayhi salaam xeer ba nga xam ne dafa jëloon yére yonent yàlla Muusa daa di daw ak moom lan moo waraloon loolu ak lan mooy sabab ab xeer woo xam ne wu ne koŋ la amul ruu amuli tànk amuli loxo amul bopp amul geen du dégg du gis du dox du lekk du naan daa di daw ak yére ab yonent waxuma ab yonent waaye bu bokk ci ulul azmi min ar-rusul kenn ci ñi nga xam ne ci yonent yi màgg yi la bokk ñooñu nga xam ne yàlla subhanahu wa taala moo leen tànn boole leen ci juróomu yonent yi gën a màgg ci yonentam yi mu ne kaana Muusa alayhi salaam shadidul xayaa Muusa en tant que tel balaa muy nekk ab yonent rek Musaa ku baax la woon ku bëri kees rawatina nag bi ko yàlla tànnee def ko ab yonent daa di koy yónni nee na mbaax ak kersa gim ko fekke woon da koo yokk looloo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam day wax xayrukum fil jaahiliya xayrukum fil islaam nit ki jamono bi mu gëmagul yàlla jamono bi mu nekkee ceddo su fa baaxee su ñëwee ci lislaam muy gën ñépp léeg-léeg nga gis koo xam ne ku doyoon waar la ne tuub naa ñëw naa ci lislaam de indaale doy waar googu soo gisee ku baax ku yiw ku sell mu nekk ci ceddo ga bis bu génnee ci ceddo gi bu dubbee bu duggee ci lislaam mooy gën ñépp Muusaa nag mbaax ga mu yoroon da ko indaale ba mu nekkee yonent moo tax kersa ga daal di taroon dafa bëri woon kersa te xam ngeen ne wal xayaau xuluqun karim kersa jikko la ju tedd jikko la ju yàlla gërëm wa kaana rasuluna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashaddu alxaya min al azrai fi xadriha ki yàlla yónni woon ci ñun muy yonent alayhi salaatu wasalaam noon la ko yàlla tabaraka wa taala tànnee moom it mu nekk ku bëri woon kersa lool bal sax yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa tagg jikko jooju di kersa ba mu ne alxayaau xayrun kulluhu kersa léppam yiw la saa yoo gisee ku bëri kersa ku baax la saa yoo gisee nit kuy rus góor la walla jigéen la mag la walla ndaw la ku baax a ngoog saa yoo gisee ku ñàkk kersa mag la walla xale la góor la walla jigéen la ku bon a ngoog wa kaana yajuzu li bani israil an yagtasila rijalahum uraat xeet woo dem dañoo yor yenn saay ay aada dañoo yor ay jikko ay melokaan yoo xam ne xeet yi da cee bëri fi mu nekk nii xeet yi nekk ci biir Sénégal xeet woo ci dem da nga fekk ñu ne ñii lii la ñuy def jamono bi yàlla di yónni Muusa dafa fekkoon ca banu Israil ñu aadawoo baaxoo yor jikko joo xam ne góor ñi bu ñu demee ca géej ga wala ñu dem ca dex ya bu ñuy sangu kenn du sol mbubb kenn du sol tubéy dung la ñuy def dañuy futteeku kenn du sol dara kenn du sol loo xam ne daf lay protéger ci sa awra wala ci sa yaram yanzuru ahadum ila ahar kenn ku nekk nii lañ koy defee waaw simmiku ku nekk ngay gis sa yaramu moroom di gis say awra moroom foo bëgg a xool ci yaramam xool ko loolu moo doon aada waa banu israil jamono bi yàlla di yónni yonent yàlla Muusa wali siddati hayaa'i Muusa kaana yagtasilu wahda waaye kii nga xam ne ab yonent la yàllaa ko tànn yàllaa ko yónni pour mu war a dindi jikko yu bon yi moom yonent boobu ba mu gisee xeet wii di bani israila lii mooy seen melokaan lii mooy seen jëf moom daal li ko yàlla bindeeg li ko yàlla may mayu ko muy dem di def ñoom lii ñuy def loolooy lan loolooy lan ah loolooy lan loolooy lan yéen waru leen fee toog loolooy lan yow yéen da ngeen a toog ci biir yàq ji rek waaye nekku leen fi loolooy lan loolooy lan wallahi yow yaa ngi fi ñi ñoom nekkuñu fi yéen nekku leen fi nekku leen fi de fii ku fi toog da nga war a ànd ak nun da nga war a nekk ak nun suñ la laajee nga tontu waaye nga toog fi di xool rek suñ la laajee ngay xool ngay kii ku fi toog da nga war a diglu waa banu Israayila lan lan doon def xamoo ko yow subhanallah waa banu Israayil lu doon def ah suñ daan sangu dañuy simmee ko def yaramu neen kenn du sol tubéy dung lañ daan sangoo waaye yonent bi di Moussa moom loolu xelam ak xalaatam mayu ko ko moom bu gisee gars yi di sangu def yaramu neen moom da leen fay bàyyi comme géej gi daa yaatu day dem ba fële mu sangu foofu moom kenn ndax keer saam gu bëri ak wax dëgg yàlla lii moom xelam nanguwu ko moom bu daan sangu moom kese mooy sangu wala yubdi shay'an min awratihi wala jasadihi te bu daan sangu du ñëw ba ci moom simmeeku comme ñoom ni ñuy def day dem ba sori ba kenn du ko séen ci moom mu simmeeku jël ay xeer yéreem teg ko ci benn xeer dugg sangu su paree solu daal dem ñibbi moom loolu moo doon aadaam léegi nag xam nga nit ñi loolu àddina bi yëpp la foo dem rek am na su nit ñi di def lu bon nga bañ cee bokk luñ lay wax dañ lay tuumaal saa yoo nekkee ci kër ñuy def lu bon ñoom ñëpp yow nga ni man lii duma ko def da ngay dégg yow la ñuy sikkal bu dee dañuy sàcc bu dee dañuy naan bu dee dañuy njaaloo mi ngi mel ne tey rek fii nu toll ci Sénégal ci corruption lekk ger tey jii bu ñu la jëlee ci benn barab ci Sénégal ngay liggéey benn waaye ñëw bëgg laa jox 1000 francs ne la liggéeyal ma naa nga ne ko non sëñ bi man dañ laa la mais yow xanaa dëkkoo Sénégal gars yi dañuy jommi dañuy waaru lu tax yow nga dëkk ci dëkk bi ba pare ñu bëgg laa neexal nga bañ ndax léegi niñ ko defee aada bu bon foo dem ci biir dëkk bi dañuy neexal nit ñi pour ñu liggéey seen liggéey Moussa alayhi salaam moom bañ na loolu looloo taxoon aada boobu mu bañ a sangoondoo ak waa banu Israil léegi nag ba loolu amee ñu tàmbali di ko tuumaal naan xam ngeen lan moo tax du sangandoog nit ñi moom awraam dafa feebar ñuy wax am na benn baat bu olof yi wax borom awra bu feebar mooy góor su fekkee ne awraam bi ko yàlla may awra bi feebar a ngi ci am na nuñ koy tuddee yenn saa nga dégg ñu ne dafa dafa nguunu ngaana wala ñu ne dafa xuuxaan waa dëkk bi di wax lool xam ngeen lu tax Moussa du sangandoog nit ñi ñu ne ah ñu ne dafa xuuxaan laa ilaha illallah xam nga xabaar bu bon ci nit ku baax ay seconde lay lay tas lay naaw di tasaaroo xabaar bu bon ci nit ku baax nit ñi dañoo bon ba nga xam ne bu ñu déggee xabaar bu bon ci nit ku baax dañuy gaaw tas xabaar bi pour wan ni moo kii yéen yéen xamu leen woon kii bandi la woon da doon maskawu rek da doon nëbbatu rek tey nag la ko yàlla weer tey nag tey nag loolu la nit ñi mel aada bu bon ci ay waxtu yu néew ñu tasaare loolu ci biir dëkk bi fa zaamu kaziban wa zuuran anna sababu istisaari muusa anhum wujudu ayib fi jasadihi yuxiifuhu ñu sosal Moussa fenal ko waxal ko loo xam ne amul ñu ne su ngeen gisee moom kenn muy sangu sanguwul ci biir nit ñi te nit ñëpp dëkk bu yëpp ànd di sangoondoo yaramam bi dafa am ayib bu ci nekk mooy waay yàllaam yi wala ku toll ne yonent xam nga nit ñi bon nañ lu toll ne ab yonent amoo lenn looy wax ci moom lu dul nga koy ayibal naan awraam nangam a ngi ci ab yonent wala saka anna hadha alqawlu adan azali Moussa ndeysaan wax jooju nag ba mu ko déggee wax ji daal di koy métti lool wallahi wax ji métti ko foo ko natt rek wees na ko ndax liñ ko wax dafa doy waar te wax ji dara amu ci te xam ngeen ne sunu borom moom du nangu ku lor yonentam sunu borom du nangu ku mu tànn def ko ab yonent def ko ndawam yónni ko ci nit ñi ba pare nit ñi di ko lor ndax yàlla wax ci alquran wallahu yaasimuka min annaas man yàlla maa lay musal ci nit ñi mu ne wa hadihi almaqala tudifu siqa fi man baasa allahu rasulan wax ju bon jooju nit ñi tàmm ma wax yonent yi wala nit ñi tàmm ma wax nit ñu baax ñi dafay dafay faible dafay def faiblesse ci gaawu yàlla yi ndeysaan ndax lan dañuy am kersa bu ñu génnee nit ñi di leen ko xoolee lan moo kii de ndeke nangam ak nangam dañuy am kersa moo tax yu wax yu bon yooyu dafa am lu muy def ci ñoom mu ne fa rasul fi ayuni naas wa nazrihim yajibu an yumassila an numuzaj al kaamil mbokk yi ab yonent bu yàlla yónni wala nit ku baax ci koñ wala ci quartier wala ci dëkk ban bët la ko nit ñi di xoole modèle la modèle bu mat kii de ku mat la kii amul lenn lu manqué ci moom kii ku baax la noonu la nit ñi di gisee ab yonent wala noonu la di nit ñi di gisee nit ku baax bi loolu amee wasa allah mu neex yàlla lii ñuy tuumaal ab yonentam te du dëgg moom yàlla mu dindi ko ndax moom yàlla moom mooy dindi tuuma moom yàlla moom mooy aar nitam mooy aar xaritam mooy aar ku allié ak moom ku far ak moom moom yàlla subhanahu wa taala moom yàlla mooy aar ay ndawam ay yonentam moo leen di aar mu neex yàlla nag lii ñuy tuumaal Moussa yàlla dindi ko ba mu set wicc te naan Moussa yaramam bi ab ayiba ci nekk naan waaye yàllaa mi dafa am xuuxaan benn bis Moussa alayhi salaam dem di sangu moom kenn comme ni mu ko daan defee aadaam mu dem romb nit ñoo ñuy sangu mu romb leen dox ay kilomètres ba kenn séenatu ko mu simmi ay yéreem teg ca xeer wa daal di sóobu ci biir ndox mi Moussa fa muy sangu rek nekk ci biir ndox mi di tànk di sotti ci ay yaramam di féey di nuur di nuqi comme ni ko kii sangu ci géej di defee mu seen xeer way départ xeer bi mu sumi woon yére yi xeer bi départ di daw ak yére yi waaw lu doy waar la de mbokk yi ah kenn dina waaw am na kenn ku ñeme toog fi ne waaw xeer nu muy dawee oh am na kuy wax loolu ba xeer naka la mun a dawee amul tànk amul loxo amul bopp amul bët ah amul gémmiñ amul nopp amul bakkan bu mu nooyee naka lay dawee hmm? waaw ku moom xeer ah ku moom xeer jeex na du moom moo defar xeer moom mi ko defar mun na ko wax la wala mun ko wax la mun na ko wax la ku moom nit ku moom bët yàlla du moom moo xoolloo bët bët gis kan moo xoolloo bët du moo ci def luy gis kan ci ñun moo xam ci bëtam luy gis soo ko daggee nii nga génne ko lan mooy gis du yàlla moo ko gis loo ku noyyiloo bakkan ku waxloo gémmiñ ku yëngatuloo loxo ku doxloo tànk lii doxloo tànk fu mu nekk kan moo xam lii doxloo ay tànkam fu mu nekk gémmiñ gi wax li koy waxloo fu mu nekk wax ji fu muy jógee ci ci biir gémmiñ gi fan lay génnee ah man de gémmiñ li ma fi gis mooy làmmiñ bëñ ah ak ñaari ngaam ak ndox moom lañu boole ak benn làmmiñ bu ndaw ci biir léegi ana wax bi fu mu nekk ci làmmiñ bi lay génnee ci bëñ yi lay génnee ci lex yi ci put bi mbokk yi wax fan lay génnee kan moom ak ci tont ah ci xel wii leen tonton Amadou nee na ci xel lay génnee kan moo defar xel fan la xel nekk fan ci bopp anamu déedéet man gisuma ko de man lii laa gis ana xel mi fan fan man gis wax du yàlla gis kawar laa gis kawar ana xel man kawar laa gis fii kawar kawar laa gis gisuma xel gaa yi ana xel bi ah waa ki def li ba doomu aadama nekk nit di dégg di gis te deret la ak yàpp kooku mun na doxloo xeer wala mënu ko doxloo moom moom moom xeer mu doxloo xeer bi xeer bi daw xeer bi doxul xeer bi dafa doon daw Moussa bi mu gisee xeer baa nga yóbbu yéreem mu topp xeer bay daw def yaramu neen di dàq xeer bi allahu akbar ma nga daw naan saw bi yaa xajar saw bi yaa xajar ewaay xeer bi jox ma sama yére ewaay xeer bi jox ma sama yére xeer bay daw saw bi yaa xajar ma nga naan xeer bi sama yére xeer bi faale wu ko mu ne wal xajaru yamdi bi siyaabi xeer baa ngay daw ak yérey Moussa mu ne waaw mbir mi nu mu mun a nekkee Moussa nekk ab yonent bu tedd xeer nekk lu wow koŋ Moussa simmi ay yéreem ci xeer xeer daw ak mu yére bi yàlla la yàlla moo nam mu mbiram yàlla ban yat la joxoon Moussa yat boo xam ne su ko jaan sànnee mu nekk jaan su ko téyee nii mu taxaw nekk bant kon yàlla mi defoon bant ba yat bi yàlla mi ko defoon jaan est-ce que yàlla mënut a doxloo xeer bi ah kay yàlla moo ko moom su ko neexee mu doxloo ko xeer bi daal di daw ba ñëw ci mbooloo banu Israël fu ñuy sangoo xeer bi taxaw au lieu xeer bi daw dem beneen for beneen boor daw ca àll ba dem ca garab ya xeer bi deful loolu ne xam nga xeer bi mu doy ak yére yi fu mu dem fi waa banu israila di sangoo xeer bi daal dem ba ci digg mbooloo ma taxaw Moussa yegg seeg yaramu neen gaa yi daal di xool yaram bi ñu ne ah gaa yi kat dañ doon wax Moussa mii dafa xuuxaan ndeke du dëgg ndax gis nañu waaye yàllam yaa ngi nii dara nekku ci mu daal di jël ndeysaan yat bi mu yoroon mu dóor ko xeer bi ba xeer bi am ay tracé tracé yat yat bi kon loolu moo lay wan ne du xeeru kese ndax xeer liñ ci xam mooy boo ko dóoree yat lan mooy xew ci yat bi yat bi moo koy yëg wala xeer bee koy yëg xeer boo ci dóoree yat xeer bee koy yëg wala yat bi yat bi nan la koy yëgee day damm wala mu fet wala mu def ay mbir yoo xamante ne ku ko xool dina xam ne fii dañ koo dóor ci lu ko ëpp doole waaye li doy waar mooy Moussa bi mu jëlee yat bi dóor ko ci xeer bi xeer bi dafa def ay trait ay trace yu yat bi marqué kon looloo lay wan ne du woon xeeru kese kese kese ndax xeeru kese kese kese du mel noonu mu ne mbokk yi kaana Moussa yaalamu annahu xajar Moussa xamoon na ne lii xeer la walakinahu faala filan la tafaluhu l ahjar waaye xeer bi day def na mbir moo xam ne ay xeer duñ ko def lan la xeer bi def daa daw ak yére yi loolu ay xeer duñ ko def Moussa xam na loolu bu baax ne xeer bi lii mu def xeer yi duñ ko def mu gisaat ne ba mu dóoree xeer bi xeer bi dafa am ay trace dafa am ay tere dafa am ay trace yu yat bi bàyyi ku ko xool xam ne xeer bi def nañ ci dara moom mu ne wa min al ajab anna asa musa wa hiya min al xashab asarat fi l xajar asfalt yat bi musa yoroon dóor ko xeer bi xeer bi lañu gis mu def ay trace ay tere yuy wane ne xeer bi dóor nañ ko aw yat te xam ngeen ne xeer dafa wow koŋ dundul waaye xam ngeen ne bant day dund ndax ci luy dund la bàyyeekoo ndax garab la waaye li doy waar mooy yat wi amul lu jeexital ci moom waaye xeer bi moo am lu jeexital ci moom jàng ngeen ci alxuraan yàlla mu ne am na ñoo xam ne dañoo tuumaal Moussa wax ko loo xam ne jaaduwul fa barra allahu mimma qaalu yàlla daal di setal Moussa ca la ñu wax jàngeen yàlla wax ci alquran lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan inda allahi inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi kaannahum wa iz qala musa li qawmihi yaa qawmi li ma tuuzuna nii Moussa ne ay yéen samay nit lu tax ngeen may lor li ma tuuzuna nii lu tax ngeen may wax wax ju ñaaw ji naan man mii dama feebar sama yaram bi dafa am lu ci nekk te waqad taalamuuna anni rasulullahi ilaykum xam ngeen ne man yonent yàlla laa yàllaa ma yónni ci yéen yàlla ne gaa yi tuumaal nañ Moussa waaye yàlla setal na Moussa alayhi salaam mu ne sunu borom subhanahu wa taala li mu soxla woon ci Moussa mooy mu setal ko ci musiba boobu gaa yi wax ko looloo tax su la ay nit tuumaalee wax la loo xam ne du dëgg jarul ngay wër dëkk bi di weddi yàlla mi moom yàlla mi buur dina la setal waqat xaana waqtu rahil mbokk yi faatu yonent yàlla Moussa jot na Moussa war na faatu war na dee génn àdduna wa li kulli nihaaya bidaaya nihaaya tàmbali boo gis am na fu muy jeexee wala fi ne lu nuyoo tàggoo lu am jeex wa mahma aasa al insan fala budda min tilka al lahzat allati yalqa al insanu fiha rabba doomu aadama lu mu dund dund dund bisa ngi ñëw foog mu bàyyeekoo àdduna nag wuy ji boroomam nag ñibbi fa mu jóge woon mbokk yi nun ñëpp danañuy ñibbi yàlla ne yaa ayuha al insaan innaka kaadihun ila rabbik kadhan fa mulaaqi ay doomu aadama ndeysaan yaa ngi nii rek di kërti kërti di weddi sa boroom di jàdd ka tëb di daw waaye leer na le bisa ngi ñëw fa mulaaqihi di nga dajek sa boroom wa inna ila rabbikal mun taha yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg mbir yi dina jeex nga dajeeg sa borom jalla jalaaluhu wa aza kamaaluhu subhanahu wa taala sa borom kon Moussa faatoom jot na ñibbi ci boromam jot na bal laqad qaala alxaq jalla wa ala li nabiyihi muhammad innaka mayitun wa innahum mayitun hatta bu dee sunu yonent la yàllaa ko joxoñ baaraam ndeysaan ne ko da nga dee de ñii ma la yónni danañ dee yàlla wax ci quran ne wa ma jaalna li basarin min qablika alxuld afa in mitta fa humul xaalidun kullu nafsin zaiqatul mawt yàlla nee na wa ma jaalna li basarin min qablik alxuld ñi la fi jiitu woon démb yow muhammad alayhi salaatu wasalaam defuma ci kenn muy sax ci kër gi kon ndax ñoom yow soo deewee ñoom ñoo fi sax yàlla nee na bakkan bu mos dund mos dee wa huna tantahi qissatu Moussa fii la mbokk yi histoire Moussa bi ñu tàmbali woon depuis ay weer wala sumatul at bi ñu tàmbali histoire Moussa ba tey sunu borom subhanahu wa taala tey la dogal mu jeex moom nga xam ne yonent la woon ci banu Israil mu ne guddi yooyu seconde yooyu minute yu metti yooyu ñëw ci moom minute yooyu nga xam ne ci la doomu aadama di waajale jëm ci boroomam minute yooyu nga xam ne ci la doomu aadama di tàggoo àdduna wuy ji boroom laxas abi hurayra nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na jaa al malakul mawti ila muusa yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom doon nettali ci hadis abu hurayra muusa bi mu waroo faatu malakal mawti bi mu ñëwee ci moom ana lan la malakal mawti def ak yonent yàlla Muusa fa qaala lahu ajib rabbak yow Muusa wuyul sa boroom qaala falatama Muusa alayhi salaam aynu malakal mawt malakal mawti daal daa ñëw ci Muusa ne ko da ngay dee rek malak Muusa daa di sone malakal mawti tëf Muusa gëri la de sone malakal mawti toj bët bi malakal mawti daal di taf bëtam jëm ca borom bi tabaraka wa taala fa raja malakal mawti ila allah fa qala innaka arsaltani ila abdin lak la yuridu al mawt waaw yow yàlla yàlla gën a xam de yàlla mi ngi seetaan seen bi xam na malakal mawti dellu ci yàlla ak bëtam bu mu taf mu ne yàlla yow danga maa yónni ci jaam ba nga xam ne jaam bi buggul dee man daal dama ko ne da ngay dee rek mu sone ma allahu akbar allahu akbar gis nga ni mu def sama bët bi qaala borom bi ne ko farad allahu ilayhi ay nay yàlla daa delloo bët bi ndeysaan ne ko nii nii rek bët bi daa di baaxaat fa qaala irji ila abdi dellul ci sama jaam bi dellul demal fa qul alxayaatu turid dama nga laaj ko ndax dund la bëgg su fekkee dund kese la bëgg dinaa ko may mu dund lu ko neex na teg loxoom bi rek ci kawaru gàtt béy wala nag wala nangam mu jàpp ci kawar yi lu mu toll noonu rek ci kawar gi li mu ngëpp dinaa ko may mu dund at yu toll noonu waaye yàgg-yàgg day dee rek su kawar yooyu jeexee li mu ngëpp bu jeexee yàgg-yàgg xamal ko ne day dee loolu mooy sunanullah fil ard ndeysaan summa ma qaala summa tamuut fa qaala fal aana min qaribin rabbi amitni min al ardi al muqaddasa ndeysaan Moussa bi malakal mooti delloo soo wax ko loolu ne ko yàlla xamal na ne daal da ngay dee soo bëggee nga ngëb gàtt li nga jàpp ci kawar lépp dina la may nga dund at yu toll noonu lu toll ne kawar yi nga jàpp waaye après da ngay dee comme xam nga ne da ngay dee dee benn yoon kese la ndeysaan Moussa daal di nangu dee daal ne waaw yàlla kon dama bëgg bu may dee nga rey ma baytul maqdis mu ne ñëw na ci beneen riwaaya yonent bi nee na kaana malakal mawt yaati naas ayaanan qaala faati muusa alayhi salaam fa latamahu fa qafa aynay fa ataa rabbuhu fa qaala ya rabbi abduka muusa qafa ayni nee na mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na malakal mawti da daan ñëw ci nit ñi jëhran nii face à face bu leen di rey si day ñëw jëhran nga koy gis mu lay gis waaye keroog ba ko Moussa sonee toj bët bi la ko yàlla may léegi buy ñëw kenn dootu ko gisati ah gars yi est ce que yaakaar ngeen ne yéen ñii kenn ci ñun bu fekkoon ne day gis malakal mawti mu ñëw ne ko di koy rey si est ce que dina yomb ndaw bëre bu métti ndaw ay péri yi ak ay suppu jalaj la ilaha illallah loolu moo lay wane dee neexut de ah nit ki nga xam ne dafa yor jaasi sax wala mu yor nangam ñëw jàkkaarloo yow ne la yow mii laay rey si ah dina la rey de waaye ba cey bala mu lay rey yenn saa yi sax nga gis ci waa joo xamante ne dafay mujj am mbetteel waa ji moo indoon paaka pour rey ñu nangu paaka bi ne ko ko cuuj moom mu faatu moo tax yonent bi nee na malakal mawti keroog da ko yàlla may ci pouvoir am kàttanam léegi kenn dootul dootul jàkkaarloo kenn ku koy suy ñëwati ci nit ñi kenn dootu ko gis ndeysaan mu ne wa haa huwa sallallahu alayhi wa sallam yuxbiru yonent baa ngi nii di ñu wax ne nii ñu nettali ne moom gis na yonent yàlla Moussa alayhi salaam wa huwa yusalli fi qabri Moussa di julli ci bàmmeelam jëlee nañ ci Anas ibnu Malik mu ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na keroog bi ko yàlla rañaanee lamma usriya bii maratu bi Moussa wa huwa qaimun yusalli fi qabrihi inda kisibil ahmar inda kasibil ahmar yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na keroog ba ma yàlla di rañaane may dem laylatul isra wal miraj romb naa Moussa ci bàmmeelam muy julli amma su'aluhu al adna min al ard al muqaddas fala sharifiha fala sharafiha wa fadl wa fadilatiha wa fadilatin min man fiha wa fadilati man fiha nee na bu fekkee Moussa li mu ñaan jalla jalaaluhu sunu borom ne ko rey Ibrahima baytul maqdis nee na sabab bi du leen dul xéewal yi fa nekk ak teddaange bi barab boobu tedd ak ngëneel yi nga xam ne moo fa nekk mu ne ñëw na ci lenn ci waxi borom xam-xam yi baadul ulama nee na ñaan na loolu ndax baytul maqdis barab bu sell la ndax ragaloon na bàmmeelam sori barab bi nga xam ne fa la ñu denc yeneen yonent yi kon mbokk yi Moussa mu ngoogu faatu ñu den denc ko ci place yu sell yooyu nga xam ne moom la yàlla wax ci alquran ne foofu di baytul maqdis suuf la soo xam ne dama ko barkeel ndax li tax ñu barkeel ko mooy genn wàllu yonent yëpp fa lañ leen suul ndax foofu mooy barab bu barkeel bu dëkkuwaay nekkoon dëkkuwaay lenn ci ay yonent bu ñu faatoo ñu suul leen foofu foofu tamit barab la boo xam ne dafa jege bàmmeelu nit ñu baax ña nee na lii mooy qissa histoire yonent yàlla Moussa wallahu taala aalam yàlla sunu boroom nag moo xam la nga xam ne moo ciy dëgg moom yàlla yal na nu yàlla jéggal njumte yi insha allah suñu amaatee dars qisasul anbiya ad durus al mustafada min al qissa dañuy jàng yan njëriñ la ñuy jëlee ci histoire yonent yàlla Moussa mu tolloog fukki tomb yoo xamante ne ci durusul Moustapha dala man nañu yàlla jéggal asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu